jërëjëf euh, mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ak di leen ndokkeel ci chaîne bu mag bi di Dakaractu TV euh, ni ñu koy defee ak yéen jamono bu ci nekk ñuy ànd ak yéen ci émission yu am solo tey nag ñu seet si borom xam-xam waaye di doomi soxna di Serigne Sidi Mokhtar Sylla euh, ñu daan ko dàkkantilee Cheikhul Asrar di borom xam-xam moom tamit bu yàlla may ci li muy yëngu tey nag ñu bëgg a waxtaan ak moom ci ay points d'actualité yu bari yoo xamante ni que. lëmbee na réew mi xool li ci gën a am solo rek dëkk leen ku yéen yi nga xam ne yéen ñu faral di saa su Dakaractu sëriñ maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, maa ngi lay fay sëñ Buur bu baax te itam di nuyu mboolem équipe bi nga àndal euh, muy waa Dakaractu. Mm-hmm. sëñ bi ku ne xam na ni euh, suba ak jàmm incha lañuy dañuy feete Sénégal feet la ko tuddee te boo demee fu ci mel ni ci ahlu chia yi du bésu feet ñoom waaye bésu dëy la. muy yowma ashura wala fii gën ko xamee ci tamxarit est-ce que jàpp nga ni Sénégal ni ñu koy dundee wala ni ñu koy feetee noonu la waaw mën nañ wax ne noonu la ci benn côté euh, li tax ñuy wax ne noonu la mooy day loo xam ne islaam daf cee yàgg am maanaam ndam ci benn côté mooy suñu wax islaam nag jubluwuñ ci lu tàmbulee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek jëm suuf waaye mbooleem koo xam ne ab yonent la woon te wàccoon ci kaw suuf dañ koy boole ci sariya dañ koy boole ci islaam ndax suñ borom moo ko jàngale wax ne islaam kat da ko wàcc ngir mu gindi kon day mel ne kon islaam kon du fi jiitu la woon yonent bi dafa ñëw bokk ci biir islaam maanaam masalan ñi fi ñëwoon ñëpp daal liñ doon fi indi mooy teg tele jàngale yonent bi yonent bi nag moom mooy salaatu wa mooy professeur bu mag bi nga xam ne moo ñëwee moo eggale njàng njàngale mépp ba nga xam ne ginnaawam soxlawaatuñ beneen yonent boo xam ne day ñëw di jàngalewaat te bul fàtte ne yonent yàlla boobu ñuy wax Yuusuf ci la suñu borom jéggaloon ba mu nekkee ca kaso loolu kon feet la bul fàtte itam ne yonent boobu ñuy wax yonent yàlla Yunus ca la ko suñu borom jéggale woon ba ko jënoo wan ne te bul itam ne ci la suñu borom joxaloon joxoon ndigal yonante yàlla nuux mm-hmm. ba nga xamee ne jël na ak ña ko gëmoon ànd ak ñoom ca gaalam googa mm-hmm. kon loolu dafa yàgg ci mu nekk bisu mbégte bisu tabaski nag. bisub tamxarit tabaski laa wax man. Mm-hmm. bu ca kilifa faatoo wala aw naqar xew ca du tee mu nekk bisu tabaski. ndax xam nga li ma a wax. ñun li ñu sëriñ Touba jàngal mooy bu ñu yàlla tegee mbégte dañ koy sant bu ñu tegee naqar nag ñu gërëm ko waaye duñ ko naqarlu sëriñ bi safar bii da cee nekk firnde li nga xamee ne mooy li muy feete tey mooy bis bi nga xamee ne ci la ko tubaab yi jëlee yóbbu ko ci géej gi loolu mooy feetu safar kon kooku day firndeel ne moom ñun amuñu aw naqar jëme ci suñu borom amul luñuy ñuy ci bis ñun liñ am rek moy sant ak gërëm té julit bu nekk non la wara mel mais bo démé ci Abdou Chay dañ koy naqarlu ba mu jëla ñu dag seen yaram ndax bes la bo xamné mo moo besu karbala si hay man nangul na len seen pas-pas ak seen gëm waye duñ sama référence ci gëm ak fas ndax ñom ñi ëpp ci samay delluwaay ci samay sahabi yi nga xam ne ginnaaw yonent sa sallallahu alayhi ñoom lay delloo ñoom dañ leen a takfiir mhm. génn leen ci islam def leen ay yéeféer bëgguma xóot ci loolu mhm. kon ñooñu duñ ay delluwaay ci man mhm. man mi nga xam ne ci ahlu sunna laa bokk man ahlu seexa duñ samay delluwaay ñun waa ahlu suuf ñun ahlu siiha duñ suñ ay delluwaay ñun dañoo am ay delluwaay te ñun suñuy delluwaay bisu tam xarit feet la ci ñoom waaye tamit bés bu ñu euh, jàppoon sëtu yonent Yàlla Muhammad alayhi rey ko ci kon xanaa saa yu xare badar ñëwee dañoo war a wala xare beneen xare hmm. xare yi nga xam ne dañ cee rey ay jullit ñu bëri xanaa kon dañ ko war islam xamut deret xamutu askan xam lu islam a xam mooy ku gën a ragal yàlla te waxtu wu ne tër nañ ab jullit ray ko dañoo ray Omar dañoo ray Ali hmm. te ñun ñëpp amuñu benn bis bu ñu leen kon kay satub yonente bi buñ ko reyee loolu ñoom dañoo def seen devoir mission buñ doon dox la matal ko dee. dañ doon jihaat dañ doon jihaat loolu du naqar yonent bi dafa doon wax ne képp koo xam ne dee na ci jihaat sa bànneex tàmbule na yaa ngi xàjjana léegi kay kon kay ku sa bànneex tàmbule lu ñu leen naqar loolu. kon waaye léegi nag man Sénégal est-ce que niñ koy feetee tamit. est-ce que waruñu ko gëna a concentré ci ci aspect spirituel bi manam di ci jaamu yalla ci istighfar ak yu mel nonu ke pecc meeg tëgg yi ñu sol yere yi jigen ñu sol yere yi góor yi puudaru ak yu mel noonu assez folklorique boobu. lolu mom <coughs> du diiné suñu culture la rek diiné nak nangul lolu diiné mom bu ton tam xarit du dara nangul góor goy sol yere jigéen jigéen guy sol yere góor di puudaru du fecc lolu diiné musuko nangul muy tam xarit ak mudut tam xarit ci yam loolu moom taxul ñuy wax tamxarit waaye li tax ñuy waroon a jàpp ci tamxarit def ko suñu feet saa yu 31 décembre ñëwee ñun dañuy fàtte ne du suñ du suñu du suñu at. ñun tamxarit xamuñu ne sax suñu at mu bees la dañoo jàpp ne rek aw feet la buy am li li jënd xamuñ ñi koy def sax xalaatuñ ne am at mu bees la ndekete loolu li muy firndee firndeel rek mooy tamxarit at mu bees la moo xam ne mooy atum jullit yi am nañ droit feetu ci. waaye nag ci feetu boo xam ne dafa dëppoog sariha islamique am nañ droit julli ci ñaan ci suñ borom mu musal ñu ci balaa yi wàcce ci at mi comme ni ko sëñ Sonia bu jàngalee ak yeneen téere yu bari loolu jullit bi na ci am na ci sañ-sañ pour def ko. daan naa faral dégg ñu naan ñaanu tamxarit. mag ñi bu njëkk am na sax nañu ko daan defalee seen njaboot. daan ko bind daan ko def ci ay ndaa nii mm-hmm. daan ko naan daan ko sangoo secret ñaanu tamxarit boobu. ñaanu tamxarit moom mi ngi ci téere yi ahlu suuf yëpp ay ñaan la yoo xam ne de ak julli la ginnaaw julli gi ñu def ñaan gi buñ ko defee am na luñ daan bind di ko jox nit ñi ngir musal leen ci balaa yi wàcc at mi buñ paree nga dem lewwi say we raay bopp jirim yonent bi daana ko def seeti ku feebar ak dimbale ko tane loolu moo nekkoon sart yi nag du dara lu dul jëf li nga xam ne jëf ju baax la rek amu ci dara loo xam ne dafa génn jëf lu baax islaam moom lépp loo ci seen wala nga seen ko ci turuux yi nga xam ne mag ñoo ko fi tëggoon nga natt ko ci islaam tolloowut ak islaam rek xamal ne bokku ci da cee rax waaye nag ñun dañoo dëkk Afrique islaam sori woon ñu di ñëw ci ñun mm. moo tax dafa bëri loo xam ne ñun niñ ko doon interprété dafa desoon boo gisee sëñ Tuubaa di wax ne lil Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahul xaraaba inni ahmadu waxul ne dama fee ñëw di tuubal nit ñi de. waxul ne dama fee ñëw itam fekk fi ay yéeféer di leen def ay jullit dana damaa ñëw gi yeesal toolub yonente bi mooy kon ay jullit la fi fekk yoo xam ne tegewuñ ci yoon yoo xam ne ci falkuróor lañu nekkoon mu leen doon jubbanti. waaw loolu ay jullit lay fi fekkoon wax nañu ne sax boobu boo nekkoon arimul Qur'an fas yéene wàccee wàccee kaamil al Qur'an dañu daan lit. taggal la ay julluli ñu di ko tension naan bisimilaay ba arahmaani ba eh, arahim ba maanaam di ko daan ko mm-hmm. daan ko teggu boobu boobu boobu ku ku mokkal alquran mm-hmm. dañ nga daan am ab laar buñ lay takkal boo xam ne foo romb dañu xam ne fii ab kaang romb na fi mm-hmm. maanaam laar bi day diree ko ci suuf ñu naan ab kaang fóor yi moo romb fii loolu boobu yooyu moo xewoon mais yooyu teewut ñoom ñu tane woon rek ñi nga xam ne ci ceddo lañ nekkoon ba tey. <laughs> sëñ bi eh, ñu fetlu fa yi benn phénomène bu doy waar. Mhm. mooy deret li tuur ci réew mi bari na. Mhm. bërki démb gis nga mbiru waaju ñu wax ci Tiwaawan présumé ndax yoon mu ngi def liggéeyam. Mhm. amaguñ ci firnde ñi naan dafa faat soxnaam ak doom ju ndaw fa moom it faat boppam. gis nga ba bërki démb eh, colonel douane boobu moom tamit. fat doomam bu jigéen euh, ba démb dem alkati bu deug fi ci parcel dóor bopam bal nit ñi melni lu xabtal jamono moy expliquer lolu wala japp ni ke amna rew mi lu ko gane ci lo xamantene ko tetti balaa yu jëm ci boru wa xam nga ab dëkk mom bu ñu eggee ci ku wax kuy wax do wax deug ñepp di fen ñepp di wor kenn di joxe rendez-vous respecté ko goor ñi ak jigéen ñi di jaxaso fuñ toll faaw ay balaa wàcc fa su dee dëkkub jullit la bu dee dëkk boo xam ne ña fa not ay jullit lañ faaw balaa wàcc fa te Sénégal foofu lañ toll xàmmeetuñ liñ war a def ci lu baax ak lu bon loolu lenn la ci leneen itam day wax lu ñuy wax ay xafaarit xafaarit yi ay xeet lañ ci rab yi ñoom ci taal dëkk yi rek lañ nekk la xew ca Mali la xew feneen ñooy taal dëkk yi ñooy ruuxale nit ñi ngir fu ñu toll nit ñi di nekk ci histoire ak di xuloo ñooy fekk itam nit koo xam ne nii bu doon xuloog nit kii wala muy joteek moom boo ñëwee ne ko expliqué lu ma jotee kii mënu koo wax ak bëri jëkkër ak jabar tey yoo xam ne ñu ngi jote yoo xam ne boo leen tegoon ñoom ñaar ne luñ jote lu tax ngeen tongoonte la ko wax loolu xafaar yi di ñoo koy ñoo koy def ñooy xabtal nit koo xam ne mi ngi xelam ba mu rey nit ci loo xam ne du ko jar ñooy fekk itam nit koo xam ne dara rajatu wala amul dara lu ko naqari lu egg ci war a xaru nga xam ne lu ndaw a ndaw a loo xam ne bu deewutoon toon xaru bi mu xaru maanaam bu ko xalaataatee moom ree mën na ko jàpp li tax mu naroon a loolu nag xafaarit yi ñoo koy ñoo koy def te xafaarit itam lu am doole la ci nit nag parce que ci xeeti sayaatiin yi la dafay daw ci dereeti nit ci yaramu nit ni ci dereetam di da koy da koy xabtal ci lépp léeg-léeg nit xaru ñu ne ay bokkam lu ko naqari kenn xam ñu ne jabaram ko kenn du ko xam parce que te nit nag su demee ba egg ci mer wala mu ak ci jafe-jafe wala mu egg ci lu ko jaral xaaru ñu ko war woon nañ ko mën xam mm-hmm. waaye léegi xabaar duy sëñ mm-hmm. naka xam nga doomu aadama moom lim am mooy ñaan doomu aadama ñaan yàlla la am ñaan yàlla nag amul lu mën a mënta fànq ci doomu aadama lu mel ni ayatul kursi yu doomu aadama bu koy jàng soo egsee ci walaa yow doo xiif soxma wa huwa haliyul azim la musal ci mboolem xeet yooyu ak yeneen ak yeneen. <laughs> waaye ñooñu daal seen présence fi mu ne bari nañ ci réew mi. bari nañ fi torop ñi nga xam ne am nañ kashfu di leen gis xam nañ ne bari nañ ci dëkk bi. Mhm. Mhm. Eh, sëñ bi ñu waxtaanee eh, beneen tomb. Mhm. mooy li jëm ci wàllu fétiche. Eh, ñenn ñi saxal nañ ko ñi koy def. ne bu dee jubluwaay bi lu baax la. maanaam comme faj nit ku ñu sànni kortu wala nit ku ñu def donc jubluwaayu fétiche ba baax na nga xam ne ne ahlu tasawuf est-ce que ànd ngeen ci xam-xam boobu donte ko day fànq wala mu def lu baax lu baax du bon lu bon du baax yéeféer bii jëf jëfi jullit du tax mu am ci ab yool tey boo sàccoon alal ba yor ko tabax ci jumaa jumaa jooju du mën a julli wala buñ cee julli yow doo ci am tiyaaba alal ji nga lijjanti te lewu la boo ci ajee màkk doo ci am aj du mën a génn asaka du mën a def dara lépp lu daganut noonu la mel ci lépp dafa am nag xam yu nit ñi di ràññ yu naqaree ràññeel dafa am lu ñuy wax batoota am lu ñuy wax batwaar am lu ñuy wax barxóot waaye ñoom ñëpp nag xam-xamu asraar moo leen tënk mm-hmm. bokkut ak nag yenn fitiis yi ci biir barxóot ak batwaar nag am na ci xam-xam yoo xam ne donte asraar la taxul mu dagan parce que lépp loo xam ne dëppoowul ak sariya islamique rek du dagan comprendre nga léegi nag fitis li yonente bi jàngale mooy daganut lépp loo xam ne nii ay xaaw la aki fas yonente bi da koo dàq lolu mom moom ta dagan moy yenne moy moy xam nga tour deret da am ñaari façon tabaski tour deret la te da dagan haj mak ba ci bis bu mujj ba la ngay def tour deret la te da dagan motax tour deret amna fu muy nekk sax ak jaamu yalla ci sharia islamique mais bokul nak ak di jël ay sangara di ray aw mala noo xam ak ni diine di bokkut ak loolu batu batuuta xam-xam la boo xam ne dafa wàccoon ñu yàq ko bi batuwaar di wàcc muy batuwaaru Moussa batuwaar la jinn yi ak sayaatiin yi jëloon wëlbati def ko batuta moo tax yonente yàlla Moussa moo yoloon batuwaar boo xoolee lu mel ne axamun saxakun xalahum yesun ak xeeti tur yow yëpp te la génne batuuta nag moom la ñi waroon Firxaw na yoroon ci lañ daan defee seen seet yeeg seen xeet yi ñu daan def yëpp ci batoota lañ ko daan def barxut nag moo wàccoon ci yonente yàlla Suleymaan moo jur loolu ñuy wax xaatimu Suleymaan noonu la xam-xam yooyu wutee waaye dafa mel ni euh, asraar moo tege ci kaw yooyu ndax dafa mel ni euh, asraar la la diine gën a gën a gën a digle wala sax moom la digle waa xam nga asraar xam nga dafa am loo xam ne nii ñu bari duñ ko bàyyi xel suñ borom dafa wax ne moo def ci alquran loo xam ne dafay saafara kon alquran dafay nekk matière première bi saafara léegi nag yow mi nga xam ne yow la suñu borom def ab jullit te nga gëm alquran la cay saafara yaay dem jëli ko yaay dem jeqi ko mm. moo tax lii rek moo lii rek moo composé xilmu lii rek moo composé xam-xamu asraar dafa am lu ñuy wax hilmu nujum moy xam-xamu bidiw dina la wax lan moy xam-xamu bidiw bo ma ko am lu ñuy wax hilmu xawaatim te moy lan moy xam-xamu khatim am lu ñuy wax hilmu hadat te moy lan moy xam-xamu adat moy déchiffrer dara am lu ñuy wax hilmu huruf moy lan moy xam-xamu lettre moy xaraf yi comprendre am lu ñuy wax hilmu raml moy xam-xamu set juroomi xam-xam yi ñoo teunk xam-xamu asrar su ko nit ki pégé motax ñukoy wax sayxu asrar comprendre waaw kon léegi ñu fi woote asrar asrar ko laaj mo ne damay asraar ko manam xana dafa am lu ci lu ci né bok lu ñu xamul bala ngay bala ngay toj juroomi juroomi xéti xéti asrar dafa am lu ci né xam-xamu asrar dara nekku ci lu ñuy jang la rek comme matière yi la la bëgg wax boo xëy def gi dafa bari xaalis wala dafa am pouvoir wala ba léegi koo gis rek mu ne la seexlu asraar la ñaata site internet nga xam yu crédible yoo xam ne saa yu ñu xëyee liñ bind ay fen lay doon bu hmm. jeex hmm. loolu ci lépp la léegi <coughs> comme xam-xamu asraar dafa nekk xam-xam boo xam ne dara identifié wu ko hmm. ku sol sa grand boobu bu yor sa kurus rek boo ne sëriñ laa kenn mënu ci dara loolu mooy problème bi ñun ñi nga xam ne dañ ñuy woowee ay sëriñ ñu ci part de responsabilité parce que war nañ génn jàngale lan mooy xam-xam bi ba nit ñi duñ leen ci nax. Mm-hmm. yéen ñi nga xam ne itam ay journaliste ngeen ak yor ay site ngeen xool nit ñi nga xam ne xamuñ dara ngeen leen di bañ a invité. Mm-hmm. loolu rek mooy mooy mooy solution bi. léegi juróomi tomb yooyu mm-hmm. ci wàllu vidéo la. bi ci wàllu déchiffré la. bii ci wàllu seet la. teqali gi lan la. Euh, bu dee xilmu nujum muy xam-xamu biddiw ci ngay mën a xamee nit ki lan mooy biddiwam ci ban biddiw la bokk mooy li ñuy wax tabixa xam nga dafa am douze biddiw fukki biddiw ak ñaar yoo xam ne mooy manaasil yi dañuy def deux fois par jour dañuy tolloog vingt quatre heures yi douze fois deux vingt quatre moo tax nit ki su juddoo dafay am ci biddiw bu mu bokk biddiw boobu mu bokk nag dafay am ci arba tabaxit ñeenti tabixa yi tabixa bu muy aju ci suuf wala sawara wala ngelaw wala ndox léegi nag nit ki ci bidd boobu ngay xam ci ban tabixa la bokk loolu moy ndariñu bidiw bi loolu la olof di wax rawhanam suuf la wala rawhanam dox la wa loolu loolu loolu du loolu du ci khatim ko koy soxla wala fenen waye loolu tabiha la tuddu moy nit ki lan moy tabiha legi nak nit ki so xame lan moy tabiha ba bare ci ngay nak dem ci hilmu ram lu setal ko ba xam-xam ba xam nit ki rabako japp wala ciata ko japp wala dara japp ko wërsëgam rek bari wut alal ah, ah, lu mu mën a doon ci xeet yooyu ca koy xame soo ko xamee nag ci ngay xam ba xam dañ koo war a ñaanal wala daa war a saraxe wala mbiram xal wala laaj wala lu mu mën a laaj foofu nga koy xamee solution bi nag mooy nekk ci xawaatim nga xam ci bi ban xaatim lañ koy ñaanal ci lañ jaar pour mbiram sotti nga xam musalasul xazali la war a nekk wala mu rabbax la war a nekk wala mu xammas wala lu mu mën a doon ci nga koy xam soo xamee nag ci xaatim bi nga koy jaar ba ñaanal ko pour xaajoom jooju faju muy fay wax muy noob muy kuy bëgg ay kayit muy lu mën a doon rek foofu nga koy xoolee mooy comprimé yi quoi xaatim bi soo daggee xaatim bi ba pare nag ci ngay soxla nag rawxaan xaani rawxaan yi ñooy accompagner xaatim bi pour may ko doole muy nit ki dafa nekk Europe nga war koo ñaanal boo daggee xaatim ba pare da ngay di wax da ngay rastuwaat boo daggee xaatim ba génn rawxaan yi ba pare da ngay rastuwaat biddiwam comme douze biddiw yooyu di daw deux fois par jour am na biddiw bu mu ci bokkoon léegi dangay xam biddiw bi ban heure lay daw heure boobu ngay werd li nga war a werd pour jàpp li nga bëgg a jàpp hmm. boo koy ubbi ci heure boobu lay doon boo koy tëj ci heure boobu lay doon lum mu mën a doon ci heure boobu nga koy dàkk bu dee nopp bu dee lu mu mën a doon boo paree ci lool nag nga daal di jëlal xaatim bi day soxlawaat li ñuy wax xilmu tabiha ndax xaatim bi dañ koy sangoo ndax dañ koy suul ndax dañ koy wékk wala dañ koy teg fu tàng ndax ci tabixam lay aju su boobaa bu dee ci tabixa ngelaw la bokk dañ koy wékk bu jee ci suuf la bokk dañ koy suul bu dee ci ndox la bokk dañ koy sango bu dee ci sawara la bokk dañ koy teg fu tàng comprendre su loolu jàllee léegi nag loolu nag foofu la ajoy nit ki di sottee xam-xam yii nag su dajewut ci nit ki wax nañ ne bu fekkee day ñaan mi ngi mel ne rek ku ñu jox ak fital di ko jamloo ci ab àll muy rëbb. bal waaw bu dee nag nit ki dafa xam-xam-xam yii yëpp daje ci moom mi ngi mel ne ku ñàddal dara ne ko rendi ko. noonu noonu la mel. gëstu gi ak jàng ko mais kenn mënu ko doon. non xam-xamu asraar kenn du ko doon nen rek moo mën a nekk mooy nga nekk ak sa waajur wala nga nekk ak nit mu xam ko jàngal la ko loolu kenn du ko doon liñ mën a doon mooy li ñuy wax kasfu fu nit ki dana am fu muy bokk deretam dana ko may mu am lu ñuy wax kasfu wala am ñoo xam ne. Euh, danañ judduwaale sax ijaaba lu ñu wax suñu boroom def ko te fekk xamuñ dara seenum njàng eggu ca yooyu yëpp dana am waaye nag deret ju baax itam dana tax nit ki suy wér di turu yàlla wala muy jàngal xuraan mu yomb ci moom yooyu yëpp dana am waaye nag xam-xam dëgg-dëgg dañ koy jàng. xam-xam dëgg-dëgg. des ko yonent bi sallallahu sax bi ko suñu borom bëggee jàngal xuraan dafa yebal Seydina Jibril alayhi salaam mu ñëw jàngal ko. Mm-hmm. waaye solu ko ko. Mm-hmm. dafa ñëw jàngal ko ko kon xam-xam dañ koy jàng. Mm-hmm.

organisation moom état rek moko man état rek moko man a organiser wala yeen ñi nga xamne yeen yor scène yi scène télé yi ngeen wut benn borom xam-xam bo xamne képp kum neut bam am xam-xam kenn du invité parce que li tass bu ñëk bi nga xamé né asrar nit ki bu ko xamé day ñaanal nit mu gis ko koku ñaanal nit mu gis ko bam siiw ci ñu bëri sawaruñ ci woon parce que da ngay xamné li bo ci duggé tay bo ñaanalé kenn gis ko bu suba kenn du ñëw mais léegi nag comme nit ki day def benn émission 1000 personnes woo ko bu mënee dara ak bu mënul dara yëpp da ciy gis njariñ léegi loolu mooy indi problème bi loolu nag neexut a régler wax dëgg fa yàlla état rek moo ko mën daanaka mën nañ ne ñun nag suñu suñu man dama demoon sax ba bàyyi woon émission yi nangootuma ko woon def parce que da ngay dem bañ lay dëkkalee foo xam ne dëkkoo fa parce que tey yow da génn jàng xam-xam sonn ci doon doomi soxna joo xam ne tey buñ bu ak sëriñ amutoon mënoo gàdduwaat ay yére dem taxaw ci marché ba di ko jaay xamu luut ak sëriñ ba nga juddoo ba tey loolu kese nga xam léegi nag nit ñëw nekk ci lu ko neex ba mu neex ko rek mu xëy na ab sëriñ la dangay mujj suñ demee ba ñooñu ñu leen di gam-gam lee da ngay mujj lii du la amalati da ngay mujj daal da nga ciy da nga ciy doyal loolu man damaa mujjoon man ay émission yëpp nangootuma ko woon def mais da dem ba gis na itam nga am devoir pour jàngale. parce que borom xam-xam bi nga xam ne lii yàlla la ko xamal ndax li tax ngay wax ne yàllaa la ko xamal mooy bi nga koy jàng yaag sa junniy moroom a ko doon jàngandoo suñu borom may la xelum nga man koo xam ñeneen ña mënuñu koo xam kon nag loolu dafay firndeel ne yow mi xam-xam-xam boobu war ngaa génn tas ko ba nit ñi xam ko ba nit ñi képp koo xam ne day jóg di wuti sëriñ euh, dina am tuuti point de départ daal pour xàmmee lan mooy ak lan mooy asrar yéen ñi war war a wax tamit aussi xam bu ngeen découragé noppi ñu war ta wax est-ce que yéen tamit amu leen ci parler ah lolu mo waral wax ji léegi lolu rek moy tax lolu <laughs> rek moy tax duñ saña nopi mhm. lolu moy tax duñ saña nopi mais dafa dafa doy war dal jaxasoo na mhm. <laughs> dafa doy war jaxasoo ñu songu suñu dernier point rek seen bi mhm. Touba ak corona ñu dara am ñu ne du am ñu ne war na ñu ne warta am seen bi joxe nañu magal si waye en respectant les mesures barrières waa xam nga sëñ bi moom <clears throat> ñun ay murit lañ su xasee ba wax ne na ngeen màggal ci rek ñun loolu amatuñ ci luñ ciy wax dafa bokk ci sarti ab taalibe dafay mel ne ab néew ci kanamu sëriñam ndigal di sëriñ ñoom jox ko rek mooy njëriñam kon foofa moom amuñu ci luñ ci xalaat amuñu ci xalaat li ci sëñ bi joxe rek lañ ciy wax li ci des nag mooy ay conseil mooy nit ñi itam ñu xam ne corona feebar bu am la ku ne itam nga xam ne aar sa bop sa bop ngay aar nit ki su aaree bopam mom moo koy amal njariñ mom lay ñëk amal njariñ parce que so walé ki feebar bi moy wal nga ko sa dom wala wal nga ko sa jarbat wala wal nga ko sa yaay parce que ki mën na dem jaxaso wat ak ñooñu légui bu ku nekk aaree sa bop rek problème doom kon fu mëna nek nekk ci aduna bi ñu xamné nit ki limi def mom bopam la ci jital te nit kenn war ko gëna bëgg bopam mais état bi itam xaw ma nuñ ko mën a tuddee mën nañ ko bañ a tuddee manque de communication mais mën nañ ko tuddee communication boo xam ne dafa faussé dafa baaxul. parce que communication bu baaxul mooy ay nit waroon a gëm dara nga fexe ba gëmuñu ko. y a problème. waaw loolu problème la am na nu communication bi doon mel nu mu doon jaare yoon kon kenn du wax kenn takkal masque. mais foofu itam am nañ fi problème tuuti mais ñu gën a góorgóorlu rek xëy na comme lu njëkk lu xew la loo xam ne siècle bi yëpp mi ngi ci door a am. Euh, peut-être bett na nit ñi xëy na itam njuumte yi ci am yëpp loolu moo tax mu am mais ñu xam ne du lu nit mën a daw ci teelaa liggéey wala teelaa def leneen gis nga gis nga peste bi fi amoon. Mm. est-ce que xam nga ne def na fi six ans juróom-benn at. Mm. juróom-benn kenn mënu koo tëju ci kër. Mm. te lii xamuñu ñaataat la fiy def kon liñ war a jéem def mooy naka lañuy ñuy woo ba mën a dund ak moom. te problème du am. lol dal mo gën defena naa ngi ci walu astral feebar bi jot ngeen ko xol suñ suñu borom may wonu len ci dara lo xamanteni ko war na ko mën safara wala kalifu jugge wala nes ko may do xam nga asrar bukut ak médecine traditionnelle mm. médecine traditionnelle ñoy fat ay hémorite ak ay diabète ak di faj ay feebar man defon na médecine traditionnelle dem na ci rew yu bari jang ko mais dama ko arrêté dama ko bàyyi parce que li taxoon ma bàyyi ko mooy nit ki su ñëwee ne la damaa feebar moom moo la wax damaa feebar mais yow amoo firnde ci ci feebar boobu moo ko dal ki ñëw ne la damaa jox garabu hémorroïde fekk hémorroïdul ki ñëw ne la am beneen dama am tension mën nga ko jox garab tension fekk tension wul loolu mën na indi yeneen feebar parce que nit ki day tëdd këram rek ron tànkam yi tàng mu ne man sëñ bi dama amee ndoxum siti te peut-être mën na am leneen na ko dal léegi nga jox ko garab bi. mu naan ko mooy infecté ci yaramam. Mm. jur leneen jur leneen. nit ki itam mën na ñëw am feebar bi mu la wax mais mu am yeneen feebar yoo xam ne adapté wul ak garab bi nga koy jox mu naan ko loolu indi indilaat ko beneen problème. Mm. moo tax man faj duma ko def. dama ko dama ko bàyyi ma commencé tuuti rek dama gis ne lim laaj mënuma ko matale. Mm. ma ma ma ma ko moo tax man du ma du ma faj bu dee wàllu baatin. lii balaa la bu yàlla wàcce xam nga balaa bu ci ne nag am na solution mais lii moom lu la waaye mën a wax muy corona moom solution bi ci médecine moderne mën a am médecine mën ko ci am parce que médecine moderne moo gën a développé médecine traditionnelle loolu mooy dëgg léegi nag médecine moderne li nga xam ne ñoom ñoo am ay machines yu man a gis euh, virus virus bi médecine mhm. traditionnelle amu ko sëriñ bi nga xam ne day ñaan leen kese la man ñaan yàlla suñu borom musal ñu ci tawat ji mënu cee def lu ëpp loolu léegi nag pour ñu noppaliku ci affaire yi ku ne dañ koy bàyyi ci domaine hmm. <laughs> noppali mbir mi. na médecin yi def li def. <laughs> sëriñ si ñaan yàlla mu jeex citoyen mooy. mooy tout comme <laughs> euh, euh, may tàggoo mooy ñëpp góorgóorluwaat te ku ci ne nga jéem a yam ci sa domaine ñi nga xam ne dañoo jàng asraar ba xam ko ñu yam ci xam-xamu asraar te ba ñu jéem a faj. ñi nga xam ne faj lañ man nee nañ ñu yem ci faj ñi nga xam ne itam ay journaliste yi ñu yem ca ku ne ca la nga man rek suñ ko ku ne yemee ci li nga man rek problème du am <laughs> ustaas yem ci ustaas imaam yi yem ci imaam problème benn problème du am. Euh, ku ci nekk euh, yem ci li nga man Cheikh Sidi Mokhtar Sylla Cheikhul Asrar tey moom lañu seet si woon euh, ngir waxtaane ak moom ci yëngu-yëngu jamono rawatina ci wàllu actualité gis nga point yu am solo yuñ ci. Euh, waxtaanee waaye waxtaanee waat xam-xam ba ku ci nekk xam lii di asraar naka la ko jaam bi war a mën a wutee waaye naka it la ko mën a jëfandikoo parce que réew mi fi mu ne coow li bari yëngu-yëngu yi bari na may diw may li may lee may lee waaye li suñ wax rek dafa naa ni euh, bu doon tari la wasaana mooy ku ci nekk ca la nga nekk na nga ca yem. bu ko ci nekk yemee ca la nga war a yem rek defe naa ne benn problème du am euh, loolu nekkoon jotaayu xam-xam ñu indi ci àndoon ak yéen di seen mbokk Bour Gueweul di leen jox dig daje ci yeneen numéro sur Dakaractu